yëwut a am euh, am ab kuréel bi nga xamante taxawar nañ ko tudde ko aar sunu élection yéen ci boobee ngeen bokk boobu euh, kuréel ëllëg ngeen fas yéene amal ab euh, ville waaye laataa ñoo dugg ci ville morte googee kuréel googee di aar sunu élection di ñaxtu ngir ñu taxawal ab élection ci lu gaaw laata njiitu réew mi di jeexal ab madame 2 avril yeneen kuréel tam bokk nañ ci biir yéen lu leen dugal ci mbir ma ci wàllum politique ay commerçant ak i industriel. jërëjëf Georges sa laaj am na solo moom la ñu bari di laaj donte jàpp naa ne du question bu ñu waroon posé bu fekkee ne tànn njiitum réew politique la ba tax na yoonu commerçant wala industriel wala dawalkatu oto walla journaliste. bu ñu waxee ne yoonu commerçant nekku ci ak industriel nañu wax ne yoonu journaliste nekku ci yoonu benn Sénégal nekku ci. ba léegi waxuwuñ ko. waaw mais pourquoi ñu bëgg a wax ne. yoonu laaj rek lu leen ci dugal. li nga laaj nii ñu bari dañ ko laaj. wax ko mu bëggoon leeral foofu ne lii ak politique du lenn lu ñu bokk <clears throat> yaakaar naa ñoom ñooy wax ne tànn njiitum réew euh, rendez-vous la entre euh, candidat bi ak peuple bi est-ce que ñun dañoo bokkul ci peuple bi. yaakaar naa bokk nañ ci peuple bi te bokk nañ ci wàll wi nga xam ne yu gën a am solo la tey bu ñuy wax économie réew mi quatre-vingt-cinq pour cent si ñun la nekk mais kooku waxuma la bokk waxuma la euh, participer mais kooku dafa war a nekk au cours des des affaires donc euh, pour leeral tontu sa laaj lii ak politique du dara gis nga assis la mu nekkoon démb moom la nekk tey moom lay nekk suba incha allah mooy une association ab ah dugg ngeen ci politique. waaw. Euh, ñun du ñu politique benn li koy firndeel mooy aar gi ñu nekk nga xam ne mooy plateforme boobu di aar suñu élection di aar suñu moomeel di aar suñu réew doo fa fekk entité bu nekk politique société civile ñoo fa nekk. am na ñu ne am na ñu ne société civile bi la plupart euh, c'est des opposants waaw mais yow sa bopp yow journaliste am na ñu lay wax ne la ne la ñu lay wax leneen. c'est pas dans ce monde nga toog doo am lu ñu la teg si sa sa baat loolu bu fekkee loolu. ngay xaar ci nu ñuy ñu ngeen di positionné wu ci espace politique bi. ba ñuy wax ba léegi ba ñuy wax ba léegi déggoo benn yoon ñu wax lu jëm ci politique politicienne duñ ko def bu dee politique la tout court nag du yéen a wax ne c'est l'art de gérer la cité la cité appartient à qui mais cette ville morte là est-ce que euh, peut-être euh, yéen nee ngeen doo leen dem ci euh, dialogue nationale bi boo xamante ni tey lay commencé tey ak suba est-ce que ville morte bi ngeen bëgg a suba yéen a ngi calculer peut-être yi mu mën a jur ci économie bi ak lu muy jur itam ci ñiy jëfandikoo ci wàllu alimentation ak yeneen. jërëjëf Aliou xam nga <clears throat> wolof dafay wax na ay du weesu bàyyi dee na sax ma lakk na xaw ma dégg nga wolof yooyu yëpp déet. Euh, gis nga xaj na teel a ñuy toog di wax benn journée ville morte conséquences yi ci nekk mais vingtin ba léegi est-ce que journée morte am na fi ñaata nit ñoo dee xam nga yow ay ko économie ngay wax nit ñi lekk ak ñàkk a lekk dee xanaa moo gën a garaaw 2021 ak léegi lu ñaata la ñuy wax maa ngi dégg ci li ngeen xewaat yi ngeen di ay 60 70 80. personnes yu fi dee dinañ ci ñëw. kan mooy responsable bi. gannaaw yàlla ñi nga xam ne ñoo teg condition yu tax dee am ñoom la. ñan mais l' du Sénégal parce que lu ko indi mooy lan ay manifestation hmm. non autorisée. Ah. est-ce que si Sénégal constitution yi di wax ne manifestation dañ koy autoriser. des manifestations ah, c'est ça le problème aussi manifestation <coughs> également non déclarées. Hmm. lii ci non déclarées non déclarées mais parce que tout simplement da nga déclaré ba sonn kenn jëlul. waaw hmm, est-ce que loolu tax na nga war a euh, nekk ci yoon yi ñu fi déclaré moo ñu nag bañ koo waxuma autorisé parce que le constitu la constitution a déjà autorisé ñu bañ koo. Ah encadré alors mais c'est dama ne ñu fi déclaré en bonne et due ah. ñu bañ koo encadré ba li ci xew-xew. ci la ah. nit ñi dee. Hmm. moo tax ñun dañuy wax ne li xew depuis deux mille vingt et un ba léegi si. Hmm. responsabilité yi certes c'est difficile c'est c'est partagé. mais dama ne bu dee cent la quatre vingt dix pour cent yi. Ah, mais loolu sa calcul loolu sa calcul la rek loolu sa calcul la may ma da nga naan ma lu tax yow sa gis-gis nga wax. sa sa pourcentage boobu foo ko jëlee. maa ngi ñëw dama ne. barki Dembo Ndiaye. wala semaine bi ñu génn ñaata manifestation ñoo fi am. laaj naa la autorisé. am nañ rassemblement am def nañ man def nañ marche euh, samedi passé samedi bële rassemblement nañ démb samedi barki démb samedi F24 def na ko le lib les la famille des détenus def nañ ko xoolal li mu drainé ci monde. naka noonu tam ñu féetewoo ci nguur gi. naka noonu ñu féetewoo ci nguur gi def nañ ko xoolal li mu drainé ci ay monde. Hmm. est-ce que dégg nga ci benn casse. waxuma la ñu damm ci nit wala ñu rey ñu jàpp dégg a vu aussi nit ñi génn ci mbedd mi di dem di taal ay ay. non laaj ak yi ko ko est-ce que na ci dara ci luy niroog yàq wala gaañ am na. ce que est-ce que mm, réew aussi mun nañ à tout moment génn euh, ne dañuy manifester xam nga loolu tamit munul am. même bu dul Sénégal boo amee loolu nag xarit doo doo mais c'est pas possible euh, tous les jours nga manifester. loolu loi bi may la am solo mooy qu'on respecte les règles mais soo mais mën ngaa wax ne man su ma meree du ma du ma ñaxtu mën nga ma ko tere ma. mais de ngay laajte ñu encadré la. déggoo li ma la wax. Hmm. comme dañ maa jox droit bi. naa la constitution yow ñu jox la devoir ci nga encadré. mais man naa respecté mon devoir. Hmm. mon droit yow nga respecté ton devoir. dama bëggoon wax ni yiñ fi organisé yëpp te ñu te ñu encadré ko amul lu xew dara. sëñ sëñ Cissé kon nag ñàkk gee autorisé. sëñ sëñ moo indi li xew waaye en outre. sëñ Cissé beneen parti bi ma daaneel beneen parti bi. mooy ñu nit ñi ñu ñu ñu manifester man na maa manifester feeñal li ma naqari ki ma bëgg mu dégg ko mu dégg ko te du ma yàq li ñu bokk du ma yàq yëfi jàmbur loolu mën naa nekk. kon ñoom ñaar yëpp mais xam nga bu baax a euh, mais par exemple euh, boo gisee ñu encadré ko c'est pour nga bañ a euh, peut-être laal loo xamante ni keneen ki am na droit moom itam di circuler normalement. moo tax li ñu ko demandé mooy encadré kese. li nga wul nag li ma la bëgg a laaj ma ñëw boo gisee ñu encadré ko pour nga bañ a euh, peut-être laal euh, loo xamante ni euh, keneen ki am na droit moom itam di circuler normalement moo tax li ñu ko demandé mooy encadré kese li nga encadré wul nag li bëgg laaj ma ñëw ne damay def nga ne ma doo ko fi defee sànni ma sànni la sëñ Cissé sëñ Cissé li ma la mhm. yi nga xamante ne yëpp tax na ba ay bakkan rot yi mhm. est-ce que ay manifestation la ya nga xamante ne dans ci li nga xamante moo ci gën bëri est-ce que ay manifestation yi la yi nga xamante ne ñi ko doon def dem nañ ci kilifa gi naan dañoo bëgg manifeste manifester. mais am na. non yi yi non. <laughs> dama ne yi nga xamante ne moom moo tax ba ay bakkan ay rot. ay bakkan rot.

respecté yoon. nit ñi wàcc ci mbed mi. di ko ñaawlu j'ai dit j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport aux manifestations ak li fi xew. moi je peux pas rentrer dans ce dilatoire. non dilatoire dilatoire am na kay non attendez attendez ñun li ñu li ñu xam ne moom c'est mhm. des faits. Mhm. comme yéen ni ngeen koy waxee yéen journalistes yi. nit mën cee teg loxo mooy manifestant yi manifestation yi nga xam ne demandé nañ ko en bonne et due forme ñu encadré ko en bonne et due forme dara xewul. su fekkee ko war a demandé dafa demandé wul deful li mu war a def su fekkee ko war a encadré dafa encadré deful li mu war a def. merci de l'avoir merci de l'avoir dit que les responsabilités sont partagées. merci de l'avoir dit voilà loolu la ñu doon xar ci. ok mais dama ne nag la plus grande mhm. partie incombe à l'État. c'est ça la réalité loolu yooyu yaa ko wax. léegi nag ñun li ñu tax a dugg ci aar. voilà da nga ma ko laaj sax na ma yéen bu faites pas de la politique. ñu fekk leen ci kujje politique répondre naa la ne lii ça n'a rien de rien de politique depuis 2021 à nos jours li fi xew ci ay musiba yëpp bu dee 100 la. 90 mhm. ñun ñoo ko encaissé. ñun la ñun ñun commerçant yi ñun ñi nga xam ñoo nekk ci wàllu économie. est-ce que xam nga ne ñi dee am nañ ci yaakaar naa ay du weesu loolu. Hmm. li fi yàqu ci alal yëpp genn wàlle gu suñu alal la c'est des milliards. léegi lu tax doon leen ci négocier ñu jalogee xool nu ñuy euh, peut indiwaate jàmm ji. plutôt que di engager peut-être euh, journée morte. voilà xam nga tey la nature a horreur du vide du yéen koy wax. ñun dañoo toog ñu ni nañu bokk ñu waxtaan ñu woo état woo askan yu nga xam ne ñun la ñu wax ni nañu changé mode de moo tax aar bu ngeen gisee ba mu tàmbalee ba léegi ñu dem fa lak nan lan la ñuy def dialogue bind ki ñu war a bind muy président muy ministre de l'intérieur muy autorité compétente bu war a doon ñu bind la ba ci conseil constitutionnel ne lii kat la askan wi di sàkku nit ñi nga xam ne mooy peuple bi ñu wala ñu ñëw ñu ne leen nañ toog bu ñu amee lu ñu naqari mën nañ ko def waaye nañ ko defee ci nii ci nii bañ a yàq donc voilà la situation bi ñu gisee ñuy doxee la noonu ñu ñëw bokk ci ñun dañoo jàpp ne lii xeex bi ku koy def ñun ñoo ci war a jur dañuy dimbale parce que wax naa la ñi ñoo ciy faatu ñun commerçant yi liñ ciy tëj ci ay commerçant kenn xamul nu mu toll suñu chiffre wàññi na wàcc na ba 60 pour cent tey actuellement demal ci marché yi les lieux de commerce yeneen ay structures yi est-ce que jàpp ngeen ni <laughs> euh, peut-être seen euh, boycott euh, bi suba dina am doole parce que quand même ñi bëri ñu ci yeneen ay structures aussi. waaw xam nga ñu nekkuñ fi naan nit ñi def leen lii par force wala dañoo jàpp ne lii bokk na ci li nga xam ne mënees na cee fësal suñu ñàkk ànd ci li xew te dara du xew maanaam yàqu du am rey du am jàpp du am ki ngay waxal dana ko dégg. dana ko def wala du ko def nit ñi dañ ci wala ànd dañ ci ànd wala duñ ci ànd sa kër yow bi du lépp nga bëgg moo fa am dëgg loolu dëgg kon li nga yaakaar ne boo ko defee mu jur njëriñ jural njëriñ ñëpp nag loolu ngay teg rek nag ku ci gis boppam ñëw ku ci gisul boppam toog et puis la vie continue ñun dañoo jàpp ne bàyyi pëccoxoo am ku nekk di def lu la neex gënul kenn du ci gañe nañ ko organiser ñii am lu leen naqari nañ ko wane. droit des consommateurs lan ngeen ci def. waaw mais consommateurs c'est les pré c'est les premiers impactés fii amul ku ci mucc xam nga lii xew nii soxna euh, sëñ bi. Euh, ci luy baax la amul ko bu sedd. yow mii doo ci génn xam nga tey loolu mën naa àgg ba ci la panier de la ménagère naka conteneur yi nekk fii ci poor bi. xam nga ne bu xew-xew amee wala muy waaj am ñu annoncé ko kenn du ñemee génne parce que dañuy taal sa magasin wala ñu taal sa sa sa sa sa pied sa sa sa sa sa sa dépôt yéen nekku leen au courant xanaa de ce qui se passe au niveau des des lieux de commerce looy def bàyyi sa bi ci port bi doo ko ñemee génne parce que doo jël ay 40 millions 50 di ko ci koor di ko di ko di ko risqué di ko génne loolu nekk fa chaque jour nga fay 100000 150000 80000 ay frais de surestace magasinage le temps affaire stabilité di am frais yooyu fu muy dugg fu dul ci produit bi lay dugg. prix de revient égal ngeen euh, par exemple ci wàllu con bon pas conséquent mais impact bi ñaata la mun a jural suba. bu fekkee non xam nga impact bi nu sommes les premiers parce que ñun dañu am ay échéance yoo xam ne du ñu xaar man dama am ay échéance ak sama fournisseur moom dëkk bi tàkk naag tàkkul li ma bind ak moom moom la moom lay xaar bu jot dama ko war a fay dama am échéance ak sama partenaire financier bi. Mm-hmm. muy banque bi muy mutuelle bi. dama may sarge charge yoo xam ne sama location dépôt dama ko war a fay waa ji dëkk bi tàkk tàkk yoonam nekku ci samay employé dama leen war a fay nous sommes les premiers impactés. mais est-ce le mieux donc ce n'est pas d'aller voir le président de la république wala ñeneen yi autorités yi ngeen toog waxtaan ngeen won leen yooyu. mais combien de fois comme patronat bi. combien de fois combien de ñaata yoon lañ ko def ñun avant lii di xew dañoo bind. mais ci situation politique bi la ñuy wax. dama ne. pas ci la nga xamante ne parce que lii du ay euh, seen moo d'ordre. gis nga mbir dafa am fu muy toll wax day weesu jëf mooy xam nga. problème bi lan la je veux dire votre votre mot d'ordre demain n'est seen jafe-jafe yi nga xamante ne moom ngeen am ci seen wallu liggéey mot d'ordre moom mooy élection dañ ko war a euh, amal ci euh, fan yu dëgmal laata mandat wu njiitu réew mi di. justement li xew 2021 ba léegi si problème yi fi am yëpp. c'est pas lié à ça aux élections. c'était pas une date. non je c'est pas lié. aar élection moo xam élection président. oui mais moo xam élection législative la. <laughs> mais aar sunu non non non ngi ñëw. xaaral maa ngi ñëw aar sunu élection ba ngeen wax dañoo muñ dañoo muñ. di jàpp ne. mais bi ngeen di muñ le 25 février. danañu romb tout ce qui est élection législative jàll na. présidentielle moo ci des le 25 février dañ leen di ranger aux oubliettes jàpp na nag au moins am nañ 5 ans yoo xam ne dañu stable. loolu lañ doon xaar lan ngay def à notre grande surprise. non mais législative yi war a am après benn pétrin boo xam ne. xamuñu kañ la. tey yow moom yow sa bopp xamoo leen. est-ce que vous avez une fois est-ce que vous avez une fois est-ce que est-ce que vous avez une fois décrété un mot d'ordre bi nga xamante ne jëm na ci 25 février avant 25 février. non mais xam nga lu xe euh, lu euh, situation bu xew ak la fa war a nekk bon loolu dafa xewoon est-ce que loolu 25 février xewoon na. moo tax man man la mais attendez moo mot d'ordre le mot d'ordre de demain n'est pas lié. aux conditions de travail wala aux conditions d'existence de ACIS mais mais si ak seen i activités. mais vous n'avez rien compris alors. excusez-moi ñun dañoo wax ne tey demal Sandaga. nit mënul liggéey parce que tout simplement incertitude bi ñu nekk. nos partenaire dans la sous-région mënuñ tuñoo ñëw jënd ci bagage. est-ce que boo waxee ñu ne la dëkk bi sa instable yéen seen dëkk bi la ñoom ñii seen dëkk kay xanaa ñu mën a gérer loolu man du ma jël sama risque jël sama alal di ko yóbbu ci dëkk yu instable ah mais c'est ça non mais attendez bu ñuy wax loolu kay euh, suñu dëkk gënul instable mais c'est une réalité sous-région bi dama ne c'est une réalité xam nga dëkk bële am na ko sama dëkk amu ko du wax ji mooy yow am nga ko c'est une réalité que nous vivons sans loolu mais tey même ci biir dëkk bi il suffit ñu ne annonce euh, marche am na doo gis kenn ku xëy ñëw ci marché bi pour jënd yow nga xëy ubbi toog. mais pourquoi euh, pourquoi doo gis nit te yaa ngi jël ay engagement yoo xam ne c'est lié gis sëñ si sa tey xam nga la moo doon si ko la may laaj xam nga élection war na am ngeen naan faw ñu taxawal ko journée ville morte est-ce que bi ñuy taal ay commerce di taal ay station jamono jooju defu leen journée ville morte tëj par exemple pour ñu bañ a. Euh, boobu moo gën leen gënoon intéressé. normalement attaqué nga xam ne moom mooy seen moomeel. en somme lépp loo xam ne daan na xew wala muy bëgg a xew ñu jàpp ne mën naa am ay mbir. ñu génn wax ak les membres prenez vos précautions. tëj dégg ñu leen trop quand même en tout cas ci ci wàllu wóole. waaw mun leen ko dégg. ah rajo yi ñuy fii télé yi euh, wala journaux yi dégguñu leen. boo lépp ci rajo yi télé yi lañ ko lañ ko lañ ko war a wax. lan ngeen koy wax ah ñun am nañ suñu canaux yu ñuy waxtaanee. yéen li ngeen di wax yëpp dañ koy dégg yéen. ah kay déedéet. <laughs> seen mbootum fóotum fii dañ ko dégg attendez li ñu war a wax ñu ngi koy wax bii nag dafa xaw a spécial parce que c'est pas assis tout pratiquement toutes les syndicats les centrales des syndicats ñu ngi ci jàngalekat yi transporteurs yi waa Kër Docteur. toutes les forces vives de la nation ñoo jóg taxaw ne justement nañu nekk comme benn nit jàngalekat yi yaa ngi dégg yaa ngi wax affaire jàngalekat yi nga laaj leen ko yaa ngi wax ci loolu man je je ñu bëri wax nañ ñi finalement euh, secteurs yi yëpp dañ leen politiser. pour juste euh, voilà euh, dugal nañu ci ay situations. comme ni ñu comme ni ñuy waxee na am na euh, une certaine presse corrompue rek c'est la même chose. <laughs> c'est la même chose loolu c'est des commentaires libres comme ni ñu amee comme ni ñuy waxee ne y a une certaine presse corrompue mën ñu wax naa li mu ba il est corrompu c'est la réalité ou c'est pas la réalité mais attendez <laughs> non attendez mais <laughs> loolu loolu nit mënu yaa ngi ci kii bi li ñu bëgg a wax daal mooy ñu ngi woo sénégalais yépp de tout bord képp kuy travailleur nga banque sa loxo nga toog bañ a liggéey le mardi lan mooy but bi wax les autorités de ce pays ñu amal les élections <laughs> jërëjëf waaw ñu amal élection présidentielle bii nga xam ne moom lañ jàppoon le 25 février démb ñu amal ko ci nu mu gën a gaayo comme ni ko constitution bi waxee ni ko président ni ko lu ko ni ko la conseil constitutionnel waxee jërëjëf tout ce que nous demandons ñu romb élection yi mën a dëgmal nag liggéey ndax réew mënta nekk 24 sur 24 7 sur 7 12 mois sur 12 mois ci politique. loolu yàgg na li fi dee bari na li fi yàqu bari na te ñun ñoo depuis 2016 léegi waxi politique rek la ñuy dégg. Euh, on a lancé. référendum élection législative élection présidentielle boobu léegi waxi politique la ñuy wax jërëjëf. Euh, Omar Cissé jërëjëf Mohamed euh, Alimba Omar Cissé directeur exécutif bu ACIS association des commerçants industriels du nuyu ak. Euh, merci beaucoup de Détié Diop Mouhamed Ali Mouba ak seen gan Oumar euh, Cissé di leen ñaanal euh, bonne journée ak programme rajo Futur Média ci kanam incha allah bu leen fàtte am na benn interview bu Abdoulaye Diop def ak benn mbokk ñaari xale yu jigéen yi ñàkkoon seen bakken ci bis ba ñu taaloon fële ca Yaraax ci jamono ji ñuy waxi ay mbirum loi d'amnistie lan moo ciy seen xalaat dinañ ci àddu ci.